salaam sama gars dal leen ak jàmm sama chaîne ci vidéo bi nag dama leen a wan nan ngeen di def ba transforme seen Android bi ngay yor ci Windows 10 voilà Windows 10 ngeen koy def quoi léegi dañuy ubbi euh, Google Chrome ñu télécharger application Computer Launcher Pro voilà léegi man nag télécharger naa ko pare voilà yéen fekkee télécharger leen ko mën ngeen def vidéo bi en pause léegi soo leen ko télécharger ba pare nag. léegi nag bu la ngeen ubbi application bi ah léegi dañuy dem paramètre léegi ñu dem application après ñu search application bi léegi ñu dox autorisation yu mu soxla ba ah. voilà léegi fii gis nga léegi non non autorisation ngeen dem voilà léegi ngeen autorisé yëpp ah. autorisation contact voilà pour mu dem euh, agenda beeg lépp voilà. léegi nag soo defee autorisation yi nii ba pare da ngay dem ci application bi rek ah yéenay xool seen application fu mu nekk soo leen demee rek soo leen waxee autorisation yi dina la jox lépp léegi instant yi mën nañu quitter léegi ñu quitter léegi ñu démarrer léegi suñ joxee autorisation yi pare rek mën nañ démarrer application bi voilà gis nga léegi am nañ application bi nii. voilà gis nga niroo naag Windows di xaaral ma ajusté ko voilà léegi xool a gis nga dafa mel ne léegi Windows voilà léegi gis nga applique soo defee ci barre de recherche gis nga da ngay am menu comme ni nga am comme ni nga koy amee ci Windows diis rek voilà gis nga application yëpp mu ngi fi voilà léegi fii mooy yi nga xam ne moom nga. moom koy ëpp di utiliser voilà mooy yi nga xam ne les c'est les plus récents quoi mooy yi nga mujjee utiliser moo nekk fi léegi léegi soo demee paramètre image yëpp ngi nii ah voilà ci lu yomb léegi fii pour euh, bi joxewuma autorisation yi pour nga mën ko fay voilà joxuma autorisation yi mën ngeen ko joxee nag léegi fii partie bi gis nga wifi bi yeeg bluetooth yëpp mi ngi fi ah voilà rotation yooyu yëpp ci partie bi la flash beeg yëpp gis nga voilà comme Windows la rek voilà vraiment am ngeen lépp fii nii ci lu yomb comme Windows rek ngeen yor léegi ah ci lu yomb voilà mini Windows ngeen am nii avec tous les options voilà décoration Windows la quoi moo nekk nii léegi léegi ci vidéo bii di stop dana dana lan woon comment faire pour transformer un Android en iPhone. waaw vidéo bi stop maa ngi leen di ñaan fekkee vidéo bi neex la ngeen like te abonné jaa ngeen jëf sama gars kontaan naa ci yéen